<laughs> donc santé utile combat bi c'est sensibiliser bu baax ci éducation des jeunes filles la scolarisation et le maintien des filles à l'école mais mhm. surtout c'est du vécu voilà xam nga boo fàttali ko après 96 mhm. black out kenn gisatuma j'ai eu la chance d'avoir une maman uh-huh. et des parents je vais dire euh, yu euh, fonk trop Euh, mhm. Mhm. Euh, mu nekk un succès phénoménal au Sénégal macha allah vraiment mhm. ne ma nag bi dëgg la waaye nag sama sañoon et puis très tôt euh, ak ay artistes yu bari parce loolu ci parcours bi la disons que après Ouza dama arrêté dem jàng ba dem léegi mais comme musique sama passion la dama am lu ma waxante woon ak sama yaay bi ma paree wax naa ko ko mu ne ma c'est bon tu continues. mooy lii nii tey. donc euh, waaw sant yàlla macha allah uh-huh. léegi entre autres euh, expérience à uh-huh. part Ouza. Uh-huh. ma fi jotoon na pour étoffer sama expérience. Euh, liggéey ak ay ñoom Aliou Mbaye ne defar leen des chœurs dans leur album. Kumba Gawlo et autres voilà léegi ma dajeeg am chance aussi te c'est que une grande école de la musique sénégalaise muy le Super Étoile. que Youssou Ndour voilà dirige. et que foofu tamit expérience internationale bi. maanaam li gën a ubbi Euh, musique ni ñu koy porter au-delà de votre frontière si Youssou laa ko gisee c'est-à-dire de visu quand j'étais derrière je ne faisais pas que chanter je le voyais à l'œuvre je voulais voir lu tax fu ñu dem en fait euh, xam nga tubaab bu lay aborder. Mhm. am na nooy ñëwee en tant que qu'africain mhm. euh, mën na la néewal mën na la sous-estimer tuutil ah, comme mën na la bañ a gémmal man Youssou partout où on allait je le voyais porter un message d'Afrique oui je vous dis kenn du ko voilà donc euh, porter un message clair et positif voilà de l'Afrique et en même temps provider euh, maanaam joxe musique bu nga xamante ne. Mhm. ni ñoom dañ koy apprécier. Mhm. tout en restant lui-même. Mhm. loolu si man c'est un modèle. donc euh, même par rapport à mes recherches musicales et autres. boole na ma ci li ma gën a jox orientation. tey bu ma bëggee parler au monde. pas au Sénégal seulement. tey ma woy fi benn wayu cosaan mais ki nekk Japon. war a sentir. fibre artistique bi. Mhm. ak euh, inspiration bi. et je euh, en Espagne avec ta guitare ay woyu ndëpp. oui oui baawu naan ay ma dem ba ay kanamu tubaab keroog. Euh, écoute dama waar quoi tubaab yi di tëb di daal man leen da ngeen daanu rab de régler leen. <laughs> et c'était et magnifique. alors instrument ci artiste. Mhm. dafa lan la lay lan la lay apporter. ah man de chanter juste dimbali na ma ci trop. loolu ci loolu ci loolu la lay dimbali na ma ci mais ah. aussi côté ah damay composer. donc ah, côté harmonie ah oui oui côté composition musicale. Ah, côté aussi euh, practice euh, maanaam di exercer. sa art tout le temps. Mm-hmm. Mm-hmm. la voix c'est un instrument. Mm-hmm. bu ma toogee benn moment bi wayuma mais da nga koy sentir. mais lii c'est pas c'est pas lourd. mën naa ko trimballer où je veux. donc à un moment donné su ma ciy liggéey. bu inspiration taxawee rek dinaa ci mën a a def. alors euh, doo doo ñu mayaat beneen morceau juste avant de euh, <laughs> finir ak Sadia ak ak euh, Dacha <laughs> avant revue de presse bi ak Mamadou Mohamed Ndiaye qui est en train de se préparer de l'autre côté Baou ak Soula Ndiaye en live. donc bii c'est un appel. Euh, un, Euh, un hymne à la nature. waaye un clin d'œil aux paysans. voilà bi nga xamante ne à l'œuvre dans son champ. soxla na ndox. Uh-huh. voilà donc comme comme comme Afrique tout est uh-huh. communauté. Uh-huh. ma ne comme bu li ñuy ñaan yëpp pour baykat bi mën a voilà euh, ji mu sax dund nit ñi dund. donc ma ma ma ma. proposé on y va très de presse bi. naa nag Sula. man gumbe leen gumbe fi xew dañuy sooga door maam yàlla yaa wàcce gumbe ñu ci bégalante gumbe leen dañuy kumbeer kon jaraafoon dooy piir baa ngi keroog bëggoon ña langee sa baaya mën eewe keroog bëggoon ña langee sa baaya toog ba góor ñëlaange sa baay ani fukki penc yeeg ñaarooy fukki penc yeeg ñaar lebu maali mareem dooyoo man de janaa ma mooy sa baaxu maam mooy sa baaxu maam di sa baaxu maam léebu eh, eh, eh. ana léebu yi ana léebu yi kan moo la léebu fii kan moo la léebu man de janaa ma taxawax ak dëggal foofu man de jëna ma taxawaax ak mbaaxooy mooy sa baaxu maam yow mooy sa baaxu maam yow di sa baaxu maam léebu eh, maram ndooy suuf si yaay boroom dana yeexa ni baykat bi jaar jaaxle ñëpp a àndandoo la baaw naan naan baaw naan dañuy baaw naan wi saa baaw naan dañuy baaw naan wi saa baaw naan dañuy baaw naan wi ci baaw naanu wisaale njël maam yàlla tawal tawal wala ngaan gox yi gox maam yàlla tawal wala ngaan gox yi gox tawal wala ngaan gox yi gox tawal wala ngaan Pape Lam demal ngooki ngook su na jur jàmm ngooki ngook su tawee na jur jàmm ngooki ngook su tawee na jur jàmm ngooki ngook maam yàlla tëwal walangaan ngooki ngook maam yàlla tëwal walangaan ngooki ngook maam yàlla cam laxit camlam laxit waaw waaw cam laxit camlam laxit cam eh, laxit a ah, camlam laxit tawal wala ngaan ngooxi ngoox <laughs> bravo Soula alors